asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di bëgg yëkkati ay kàddu yoo xam ne nag naqar bu ma am ci sama xol moo tax ma di ko def doonte gënalu ma sax waaye nag faw ma def ko ngir mu wàññeeku ci man tuuti euh, mbokk yi dama seetaan ci réseaux sociaux yi ñaari vidéo yoo xam ne bi moo ko seetaanee ba léegi tëdd naa tëdd waaye mënuma nelaw moom soxna soo xam ne dafa wax ne moom dafa tëddoon di nelaw rek ñu yee ko nag sa doom dóor nañ ko bal faatu na benn xale bu góor fekk ma fi ma tànt xanaa yëgoo xew ma ne ko mën a bàyyi seet noppalu na nee nañ daal bal lañ ko dóor yuuxu naan ba dee wàllu nu boo yeexee nu dee ne kuy ramu ku am keneen ku góor koo xam ne moom it nee na doomam sax dafa wooroon dogagut ñu ne ko faat nañ ko. mburu moom doon ndogoo mi ngi ci loxoom. bu ndaw juddoogul amugul sax 17 ans yu mat. jooyu dara. police yëngu yor seen i fetal. wuy seet na maa ma bëri kii papa dinaa la yóbbu Màkka. sama papa maa nekk xale bi daf maa ne kuy ramu ku mbokk yi muy lu diis lu mett sama xol ndax soxna si soo xoolee environnement bi mu toog di wax rek nga xam ne kii loxoob sax jotul ginnaaw xëy na boobu ci la yaakaaram nekkoon tey faat nañ ko ci loo xam ne lu mënoon a ñàkk la ci loo xam ne luñ mënoon a éviter la mais le coup est déjà parti euh, monsieur le président Macky Sall mets-toi à leur place tey de bu fekkonte ni bii dañ laa fekk foofu ci pale ne la Amadou Sall dóor nañ ko bal ca mbedd ma faatu na balaa janta so ki ko faat moom fu mën di nekk des na ko traqué des na ko xam des na ko tëj ci kaso bi loolu nag lañuy xaar ci yow ci ñii. mbàkke yuuxu naan ba dee wàllu nu boo yeexee nu dee melel ne kuy ramu ku dee yaa nu tinul waaxee nu ndax ñii yaay seen bàyyi tu es le de la nation yow lañu dénk Sénégal. te ëllëg it lu mat a bàyyi xel la ne la wóor ne diggante bi nga yore senegaal ba ba nga koy bàyyi benn par benn da ko rendre sunu borom da ko bàyyi xel bu baax da ko soraale bu baax a baax a baax lii am ci Sénégal nag lu ñu waroon mën a éviter la lu mënoon a ñàkk la. waxal nga sa bopp sax ne lu mel ni masta am Sénégal te moonte bi muy am yaa ngi fi di xam di jéeg sax loo xam ne ñun yëguñu ko nga seetaan ba lu toll fukk am na sax ñu naan fukki nit ak benn ñàkk nañ seen bakkan ci loo xam ne du dara keroog bi nga xamante ni bii commissaire police ñëw na kër Ousmane Sonko di wax ak nit ñi su fa sànniwutoon lacrymogène kon lii lépp mën naa bañ a ndax keroog damaa jàppoon ne ñoom buñ ñëwee li ñu war a def comme dañu nekk ci crise sanitaire ay masque nga waroon a commandé jox ko ña fa nekk neneen takk leen masque ndox sax boo ko mën a jox di leen ko jox ñu toog foofu kon xat du fa dem ndax sénégalais duñu ay nit ñu violent xamuñu ko keroog bi nga xam ne Ousmane sonk mu ngi dem di wuyu ji préfet Dakar bu joxewutoon ndigal force de l'ordre ñu sànni lacrymogène mën naa koo waat ni lii fi xew du xew kon war ngaa xam ne ay mosen moom saafarawut waaye day yokk jàngoro loolu moom war nga ci am yàqin ndax bu mosen tàkkutoon lii lépp du am boutique yi ñu fi dajeeg station yi ñu fi tojog yooyu yëpp loolu rek mooy sabab si monsieur le président donte nag nit ñi moom kenn ku ci nekk am na lu leen naqari ndax li leen métti nii nii nii nii bañ génn ci mbedd mi moo leen naqari woon ci 2012 ba ñu jëlee fi woon Abdoulaye Wade ndax même situation la même situation Mamadou Diop étudiant mi faatu bu fekkoonte ne bii tey foofu mu faatoo dafa tuddoon di nelaw ñu yee ci jamonoy manifestation yi bu jógee danaan ana gars yi fu ñu nekk ndax day jàpp ne yëf yi moo continuer mais amul benn changement benn changement kon nag ma jàpp ne population bi moom waroo woon a xaar ba tey ngay doog a xam seen jàngoro ndax tawat juñ tawatoon moo taxoon ñu jëla teg la fa ngir nga saafara leen ko kon rek waaye monsieur le président góorgóorlu ci lii la fi dese nga fexe fee bàyyi woy bu rafet te xam ne te yow la waaye ëllëg sa borom te woy wi nga fi bàyyi du ma sa fay yàlla nay woy bu baax waaye daal ñii nga xam ne seeni doom faatu nañ na nga fexe ba na ko lijjanti soo ko lijjantiwut fii da ko lijjanti fële te lijjanti ko fii de moo gën man nag ab citoyen laa rek bu nekk ci dëkk bi bokk ci ñi nga xam ne sonna naa lool ci nga jël réew mi daaw mu nelaw guddi daaw mu nelaw bëccëg nekk ci réseaux sociaux yi di filmer di monter lu ne def naa ko ngir rek ñu jële fi Abdoulaye Wade teg la fi yow monsieur le président Macky Sall ngir amoon ci yaakaar ngir boo fi toogee li ñu naqari li ñu doon jàmbat boo ñëwee da nga jàll jaar ca yoon woowu waaye dafa mel ni la fi xewoon rek moo fi xewaat politique politicienne bii nañ ko fi jëlee du lijjanti senegal du lijjanti senegal monsieur le président te it askan wi di leen bàyyi xel bu baax suñu kilifa diine yii di leen bàyyi xel bu baax ndax keroog sëñ Muntaxa communiqué bi ñu def. mu jaar Cheikh bas te Fallou Gala si la wax ko ne sëñ bi nee na lu wër Touba ak biir Touba bu fi kenn manifester képp koo xam ne mënta ñàkk ceew nga defee ji ko feneen kooku ñàkk pexe rek moo tax mu di ko wax waaye su amoon lu ko neex kon manifestation du am fenn ba nga déggee communiqué boobu rek nga waroon a jóg waaye nga bàyyi ba lii xew-xew Sénégal am ñoo xam ne yàq nañ leen seen alal investissement yi ñu doon def ci dëkk bi ñu yàq ko ay milliards pillé nañ ko ci dëkk bi ci lu matul une semaine. monsieur le président corona sax li manifestation yi yàqu corona yàqu ko ci Sénégal kon nag jàpp naa ne war ngaa taxaw lijjanti injustice bi waaye nag lijjanti jafe-jafe yi nga xam ne nee nga dégg nga ko da nga bàyyi ko xel bu baax a baax a baax maa ngi sant di gërëm di ñaan jàmm yàlla am Sénégal jàmm yàlla sax Sénégal ci barkeb Serigne Touba jërë ngeen jëf.